li amoon ca prison bu camp pénal IGFM jox kàddu gi waa administration ñu yokk ci leeral ne nag dañ doon nemeeku rek ñi prisonniers yi nekkee foofu ca biir camp pénal loolu amul woon benn jafe-jafe coow li nag mu nga tàmbale gannaaw bi nga xamante ne dafa am kenn ci ñoom ci ñi nga xam ñoomee prisonniers yi ñu dal ci kawam dal yu méttee métti ndax dañu njort ne dafa am ay xibaar yoo xam ne mu ngi koy jox waa administration administration ci boppam daal di réagir ngir rek mbir mi dalaat bu baax a baax loolu la mooy leeral bi nga dalal États-Unis Joe Biden nee na dana dalal lu tollu ci téeméeri réew ak fukk Sénégal ci la bokk ci benn sommet boo xam ne dañ ko jaarale ci xarale yi ngir waxtaane ci biirum démocratie mu war am ci juróom-ñeenti fan ci weeru décembre ba fukki fan ci weeru décembre bi di ñëw ñu yokk ci ne nag dañu bëgg a xool bu baax a baax fi mbirum démocratie bi tollu jamono ji lu tollu ci fukki réew ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci bokk ci Afrique waa Maghreb nag bokkuñ ci waa presse Afrique ñoo joxe xibaar bi ne waa cour d'appel nag ñu ngi koy euh, def dàq ay candidat waa cour suprême nag nee nañ duñu àtte mukk recours yu nga xamante ne préfet yi def nañ ko bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi waa ak Actu seen joxe Louga ñiy sam nag ñoom fi mu ne nii ñoo nga ñaax kilifa yi ñu taxaw leen ci nu mu gën a gaawee ndax jafe-jafe la am jamono ji amuñu foo xam ne foofu lañ di mën di yóbbu seen jur yi yokk ci ne nag dañu def ay dëkk ak dëkk ngir daal di yóbbu jur yi foofu loolu nag indi leen ay jafe-jafe yu bari waaye li leen gën a sonal rek mooy sàcc yi am foofu ñu yàq nguur gi nag mu taxawu leen ngir ñu dàqal loolu bu baax a baax njiitu maison des éleveurs foofu ca Louga Samba Sow moo eggee xibaar yi jox ko waa APS sargal bi nga xamante ne Moussa Tine jiite alliance démocratique penco mu ngi koy sargal magistrat bi di Souleymane Teliko nekkoon fi njiitum UMS mu ne Souleymane Teliko dafa sargal bu baax a baax réew mi kon réew mi war na ko mën a delloo njukkal mu wax ko waa Vallée Info Fouta Tampi Fatoumata Ndiaye daq nañ ko nekkatul la njiit la waa Algérie Actu ñoo joxe xibaar bi Seneweb wax ci mbirum trafic de drogue police parcelle Assainies teg nañu koo xam ne vigile la maanaam ku doon garde ñu fekk ci moom lu tollu ci ñetti kilogramme loolu mu nga am ca euh, jamalaay Kigali ay activiste yoo xam ne ñoo nga nag di bañ ngir kii di euh, Koffi Olomide amal fa concert lu tax mooy dañu gis ne artiste bi dafay fitnal ay jigéen lool sax moo tax ñu ngi koy ate fale ca réewum France moo tax ñu ne waru fa def benn concert xibaar bi nag mu nga ca RFI tour du web fi la yem jërë ngeen jëf ci déglu